ndeysaan nga Fils mi ngi noonu Katy a ngi noonu ndeysaan ne ci buntu ba di waaj a dugg si saan Fils de Katy a ngi am na lañ koy defal si tànk ba dafa am lañ koy defal si tànk ba moom Sokh ndeysaan nekk ñaari adversaire de taille ndeysaan lii da ay poftan yu ñuy di ko bind ay poftan la poftan nag day toj liggéey nag poftan nag day toj liggéey waaw joggil benn tànk ñaar sukk day saan ñu sotti ko ay seddaay bi ñu sotti la ndox wop pop pop pop xoolal ma kii moom kii moom weer bi ñaari yoon la si sangu kii ko fi mu toog sooko bu Jaxaay a ngi noonu ndeysaan ay waay ñu ngi koy defal débat déb yu mujj yi mais ñaari xale yi neexoon nañ de ay naataangoo lañ ëppante wuñ dara sutante wuñ dara ay lamb xale koy def waay bilaay lamb xale koy def ay Zal li nga def xamoo ko ay Zal waaw waxtaan leen Oh, waaw moo tax leen lii bëgg naa ko waaw sport la sport la ndeysaan sport la c'est la loi du sport waaw lii bula la wala sa waay ba mel ni bula la sottee ko de bula mais doon sottee ko eau lii bula la de ay bu ci eau de javel ci eau de javel jaaree di nga weex fur laay pour nga weex fur billaay pour nga saan saan dem na di ba sama xel dem na si Modou Lo Ama Baldé si ah waaye sama xel dem na si Modou Lo Balla Gaye ba ah waaye sama xel dem na si Modou Lo Balla Gaye ba waaye bëgg naa lii lamb dellu si waat na lamb ñëwaat na lamb ñëwaat na ndeysaan lii dafa si lamb ngeen daw bëkkante soo xoolee Zal confiance tëggoon na Diourbel soo bi muy mujj foofu Kogna dee ko daanoon mu del dugaat fa jël Fils de Katy ndax nee na dafa amoon la ko naqari moo tax mu jël kii di Fils de Katy ah na xale de nee na jóg leen Sokh 2 ak Fils de Katy ale ndaan sowaye kaka Mariama Leyun esaan ñaari xale yaa ngi noonu ñu ngi leetoo jegante nañ ñoom ñaar wàcco nañ dañoo wàcc ba tolloo ñoom ñaar Fils de Katy ak eh, Sokh 2 eh jam na Fils de Katy ak Sokh eh Sokh remise na ko Fils de fayu see Fils de Katy remise at na ko eh jàppante nañ pousse mu xeex xeex iberkil saan Fils de Katy Sokh añ na ko da koy lalli wala Sokh añ na ko da koy lalli wala Fils de Katy na ràcc am na ngemb Fils de Kady ak Sokh 2 saan ba ba do Palaake nag mu bañ Palaake jël na daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko day fay wala day fay wala day fay wala daan dóor day fay wala da kaa daan.